ay ca murit Touba ca kanam weer wi dee na Serigne Touba liggéeyal ko warteef la ci ñëpp. joxe ñaari téeméeri dërëm ci Touba ca kanam weer wu ne nag boole na jëf yu baax yëpp. gannaaw ba mu tabaxee juróomi poste de santé ak ñaari centre de santé ci dëkk bu sell bi Touba. kuréel gi di Touba ca kanam di wéyal ay yëngu-yëngoom ngir indi ay saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñu ngi jànkonteel ak moom ñeel wàllu wér-gi-yaram tax ko sumb yeneen yi poste de santé bokk ci yooyee Aliya Sam ak Madiana Ciss maam Thierno Ndiaye moom mi nga xam ne moo jiite commission réalisation di ci ndaay leeral. boo xoolee sànce yi ak ni mu mel nii di nga gis avancement yi boo xoolee euh, Aliya avancement am toll na ci euh, quatre-vingt pour cent ndax boo xoolee gros bi pare na euh, ba ñu karo ko bi pare na aluminium bi pare na boo xoolee kii pavé mi ngi nii sama côté di pavage di ko di mool pavé yi. Euh, kon day mel ne euh, li des mooy peinture ak euh, espace vert kon boo xoolee plomberie bi électricité bi yëpp moom tamit pare na pose dernier dañuy appareil yi rek moo ci des naka noonu boo xoolee Madiana Ciss tamit sorewuñ fuñ toll ak soixante quinze ndax moom métallique am des na tuuti naka noonu gros œuvre pare na boo xoolee aussi li nga xam ne mooy euh, plomberie bi électricité bi foofu la toll ba kii pavé aussi moo nga fa instant bi di pavé lañ fa waroon a def ci côté yi ci charpentier loolu aussi parce que pare na kon bu ñu demee saam day mel ni moo yii yëpp benn sorewu ci moom moo leen xaw a rawee tuuti boo ko doon xayma mën nga ko xayma ci quatre-vingt-cinq pour cent ndax boo xoolee euh, euh, li nga xam ne mooy pavage bi moom parce que mool na lépp ba pause rek moo ko dese kon loolu mooy seen différence moom boo xoolee gros œuvre am pare na euh, muy wàllu carrelage muy wàllu électricité plomberie yëpp ay pose dañuy appareil moo ci moo ci des kon euh, pavage espace vert yooyu moo fa des. boo xoolee Touba ci kanam post yi mu def yëpp boo xoolee premier post bi nga xam ne mooy Lansar. Euh, Boborel Kër Gol Daaru Xadim ba ci ñaari euh, centre de santé yi muy euh, Touba Njaareem ak Ndaam yooyu yëpp biñ ko tabaxee ba mu rafet dañ ko équipé comme ni nga ko waxee kon yii tamit noonu lay demee waat ak Gédé kon yii tamit noonu lay demee waat dañ koy tabax ba mu pare ñu équipé ko ba mu normal nga xam ne ñi fiy liggéey dañuy ñëw rek liggéey niñ ko Euh, fàtte expliqué tin mooy ni mu bindoo boo xoolee euh, tabax bii nekk sama ginnaaw mooy post de santé bi poste bi nag dafa composé ci infirmerie ak euh, maternité boo xoolee dañ ko xaaj ci digg bi mu mel ne mu mel ne benn bâtiment mais ñaari bâtiment la dañ ko dañ ko boole ba noppi mu am benn séparation seen diggante nga xam ne mën nañ tëje mën nañ tëjeeku waaye comme docteur Ndeye Maguette nee na day nekk Euh, loo xam ne dañu war a demlante di dikkalante ndax affaire de hôpital la moom moo ñu gën a xiirtal sax ci ñu bàyyi séparation bi mu ubbeeku nga xam ne kon mi ngi composé wu ci euh, maternité ak infirmière infirmière yi naka noonu boo xoolee bâtiment bële nekk sama càmmoñ mooy logement bi logement bi tamit dafay nekk double double logement maanaam dañuy dëkkal infirmière bi dëkkal sage-femme bi kiy faj dafay jege ñi mu war a faj waxtu wu nekk maanaam buñ bu doon nelaw sax dañ koy mën a fëgg mu ñëw faj boo xoolee ci entrée bi dana am ñaari ñaari eh, gise benn gise mooy gise gardien beneen gise bi mooy gise payman fi ñuy daggee ticket naka noonu am na toilette publique ci ginnaaw boo xam ne pour public bi nga xam ne dañuy visiter seeni malade wala ñuy visiter post bi naka noonu am na benn mbaar boo xam ne day nekk à côté boo xam ne pour Euh, ñi nga xam ne dañuy visiter ñuy mën a toog foofu bañ a déranger ñi nga xam ne ñoo ngi liggéey ci biir poste bi euh, naka noonu du ñu déranger logement bi ndax logement bi dañ koy defal séparation ak euh, ak ak poste de santé bi. day am jàkka boo xoolee fii dafa dend ak benn juma moo tax sax amul jàkka mais bu dee yeneen yi nga xamante ne bi am am jàkka fu mel ne Madiana 6 fu mel na Sam ak yeneen yële. yooyu yëpp dañuy amaale benn jàkka boo xamante ne bii day tax ñi fay liggéeyee ak ñiy visité euh, heure bu ñu bëggee julli dañuy mën a julli comme ni ko sëñ Saaliwu Mbàkke daan diggale ci bépp barabu liggéeykaay bu ñuy liggéey Touba ñu wut fa jàkk euh, bu fekkee euh, mën nañ ko xayma mën nañ wax fii ak trois mois. gën gaa yàgg lépp war naa mën a pare incha allah. muy liggéey bu rëy bu yàpp nga xam ne Touba ca kanam mi ngi koy wéyal ci dëkk bu sell bi di Touba ñeenti poste de santé yooyee bi nga xam ne ñu ngi ko doon defar fii ci Guédé jamono jii ñuy wax ak yéen liggéey ba tàmbali na. ay ca murid Touba ca kanam weer wi dee na Serigne Touba liggéeyal ko war warteef la ci ñëpp. joxe ñaari téeméeri dërëm ci Touba ca kanam weer wu ne nag boole na jëf yu baax yëpp.